nopp daloo ti xibaaru bës tàmbalee ti naa leen ko dee jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa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 koy yat bañ koy toggali xewer mbir mi nag nee ñu nii la deme ndaw si dafa demoon voyage bi mu dellu see dal di dugg ci biir néegam nuyuwul rakku jëkkër ji naka noonu soxna si bi mu fa nekkee ak diir bi famille bi waree bool bi di xewlu noonu ci la génnee pour ànd ak ñoom xewlu ci la ko rakku jëkkër ji interpellé ne ko lu tax bu nga jógee voyage dugguloo sama neeg nuyu ma daal ko koy waxee ci ton bu doy war noonu ndaw si nekko dema dama ko fàtte woon tegal ko ci ne seetaatal ni ngay wax ak man ndax sa jabaru mag la te muy dëggit noonu ci la histoire éclaté ci seen diggante ba FD di rakki jëkkër gi jàpp bees dóor koy yat ba mu daanu xam eskay ci lañ ko évacué ca l'hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba gannaaw ba mu ximli ko nag ci lañ ko defaralee certificat médical bu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bees di ndaw si nag bi mu génnee hôpital dafa porte plainte rakku jëkkër ji ca brigade gendarmerie bu Daara naka noonu ñu arrêté de dal di koy defeere ca parquet bu Louga ci wàllum coups et blessures moo tax ma ne fitna baaxul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca yaayam doy na war ab étudiant daal moo fa sàcc vidéo projecteur ya cay mim réew étudiant bi mu ngi wuyoo ci turu YM moom nag yoon mujj na ko daan benn weeru kaso bu mu dul tëdd waa ji di étudiant bi nag troisième année la doon def ca IAM gannaaw bi mu sàccee vidéo projecteur établissement bi li ko feeñal nag mooy vidéo surveillance ya ëskëy étudiant bi nag ci kanamu l'enquêteur yi li mu googu mooy moom ci boppam un million cent soixante mille lay fay neuf mois yi muy jàng te ci neuf mois yooyu muy jàng quatre mois dong ci jàng ndax seen établissement boobu jàngalewul bàyyiwul retard rek retard rek waaye ma ne ko nag loolu dug lay pour nga sàcc waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca Parcelles Assainies romb na doy waar ab chauffeur daal la ñu fa teg loxo ndax daf doon séq ak corom ak beneen xaritu corom ba noppi di leen filmer di leen chantage waaye man maa ngi Sénégal walla moo tax ba brigade de mœurs teg na ko loxo gars yi yi F Mendy yi gannaaw bi ñu jotee ci xibaar bi serne sofoor bi la ñu def ca Parcelles Assainies dal di koy teg loxo waaye nag li tax ñu teg ko loxo mooy ay tuuma yu diis yu teg ci kam tubaab di ko wax collecte illicite diffusion d'images à caractère pornographique menace de mort ak chantage hop lo nag nee ñu saa bu mësan di sëq ak jigéen rek ab portable am lay teg di filmer rek di filmer rek <laughs> waay waay waay waay moo tax jigéen ñi xam leen seen bopp waa ji saa bu nekkaan ak corom filmer saa nekkaan ak xaritu corom filmer saabu bu mësan sëq ak beneen jigéen filmer non kii ab maniaque sexuel dëgg la yëf yi nag mu moom de ndax waa gannaaw bi mu amee vidéo corom boobu ak xaritu corom bi daf leen doon chantage di leen tëddee xale nag bi ñu demee ba sonn dañoo saisir parquet naka noonu ci la police brigade des mœurs di ab entité ci sûreté urbaine bu Dakar passé à l'acte ba teg waa ji loxo waaw góore waay waa ji mu ngi wuyoo ci turu IS am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar waa ji nag ci kanamu lanketeer yi gannaaw biñ ko sëkkatelee li mu wax a doy ndax nangu na ne bi muy seq ak corom bi tegoon na téléphone am di filme bi muy seq tamit ak xaritu corom bi filmer na ko ak yeneen jigéen yu bari yum ko def waaye nee na nag filmer googu mu leen doon filmer ñoom ci seen bopp ñoo ko doon nangu wopp la kay mim réew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax Cerno Jàllo nag canal bi mu filmer kilifa ba Willy Bandeko ndekete Cerno Jàllo ci bopp ma ne film na Simon laa wax waay waay ay waay Cerno Jàllo waay Cerno Jàllo waay yàlla nañu yàlla musal ci xarit bu mel ni Cerno Jàllo ay waay xaaral ma yem fii mu doonoon seen xibaaru buzz daje samedi ci yeneen xibaaru youtubers